ne ko ne ko ne ko loo wax mu ne ko waay yàlla jo yalwaan mu ne ko laa yàlla kon nii lay def waaye daal di firi daraa ji ne ko xoolal waaye suñ bàmba ji moom ni ko suñ bàmba def te ngay ñëw waayoo ki ma waayoo moo gën te kooke am na tawféex ba waayoo suñ bàmba mujj na ñu di ko ñu di ko rang ba Seex Ibra di laaj kay doon ñu ne ko mooy ka waayoo woon yàlla nga ne ko na waayoo suñ bi mu ne ko ah yaakaar naa bu ko defutoon du am lee waaw fu mu yem bés bu set damay tedd fii ne soo gisee coow lu bari lépp mooy teraangay Sëñ Tuubaa yii gaa yi toog muy dox ci Sëñ Tuubaa rek nga koy gisee toog fi nga toog muy dox waaw kenn day laaj ma looy liggéeyee ma ne ko toog muy dox mu ne ma luy loolu mu ne ko toog muy dox bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin nabiyina wa xabibina muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajmain mbokki ginnaaw bu ñu sante yàlla borom bi subhaanahu wa taala julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu am yenn taxaw seetlu ñu def ci vidéo bii nii vidéo bi ka ciy wax bokk na ci ñi nga xamante ni ay coronavirus lañ ci biir Sénégal ñi nga xam ni ñooy tasaare bokkaale ci biir Sénégal ñi nga xam ne ñoom ñooy jël place yu yàlla jox ko mindeef teg ko nag ci ay nettali ak i sos ak i wax yoo xam ne tegul fenn man ci lu muy wax laay commentaire ak la mu toxal ci sëriñam ak la mu toxal ci cheikh ibrahima moo ko wax ci loolu laay wax wax ja wër na wala wërul lu mu toxal ci moom wër na wala wërul kooku yàllaa xam mais ci lu mu wax laay commentaire ñu bu tim ko nako nako nako nako loo wax mu ne ko waaye yàlla ja yalwaan mu ne ko laa yàlla kon nii lay def waaye dari di firi dara ji ne ko niko waaye suñ bamba ji moom ni ko suñ bàmba def te ngay ñu waayoo ki ma waayoo moo gën te kooke am na fiix ba waayoo suñ bamba mujj na ñu di ko ñu di ko rang ba seex di laaj kum dool ñu ne ko mooy ka waayoo woon yàlla nga ne ko na waayoo suñ bi mu ne ko ah yaakaar naa bu ko defutoon du am lee waaw comme boo xoolee vidéo bi moom mu ngi ciy wane ni sëriñam moo gën a foor yàlla nekk ak sëriñam wala féet ak sëriñam moo gën a foor yàlla ndax dégg ngeen wax ci la ci gën doy waar ña koy taluñoo utiliser seen xel waaye ñu nga kontaan ci wax ji ñu ngay ree ñu ngay xàkkataay ñu ngay muuñ lan moo leen kontaanloo ndax seen sëriñ de lañ ne waayam moo gën waayu yàlla seen sëriñ lañ ne waayook seen sëriñ moo gën waayoog yàlla loolu moo leen kontaanloo ñuy reetaan mbokk yi fii nii mbokk yi ñi nga xam ne ñoo nekkoon yéefaru démb yi àgguñu woon ci bokkaale bi nga xam ne tey jullit tey àgg nañ fa ndax yéefaru démb yi ñoom dañu daan jaamu yàlla di jaamu yeneen xërëm mais jëluñu woon seen xërëm yi teg ko ci kaw yàlla mais tey lu ñu gis mooy ñuy woote woo julli tey dañoo jël seeni nit jël seeni sëriñ teg ko ci kaw yàlla borom bi subhaanahu wa taala vidéo bi amul benn xam-xam boo xam ni war nañ ko fi wax di ko dajji doo yaakaar ne leer li ma yitteel mooy comme que ñi ay waxkat lañ fa ñu féete nit ñi di leen déglu nañu taxaw ñu leeral seeni ñombe ñu moytuloo nit ñi gis ma fi xam-xam boo xam ne war nañ ko fi wax war nañ ko fi dajj nañu xool sëriñam boobu tey muy jël di ko teg ci kaw yàlla bu dul woon ak yàlla sëriñam boobu du exister sëriñam boobu bu nekkee ba ñu xam ko ka ko nekkal mooy yàlla ka ko amal mooy yàlla yàlla jaarale ko ci ay waajuram mu am papa am yaay am ay doom mu doon dund di dox comme nit ñi nañuy doxee di lekk comme nit ñi nañuy lekkee di naan comme nit ñi nañuy naanee di faj seen aajo comme nit ñi dañ daan faje seen i aajo ba àppam jotee yàlla jëlee ko fi ñu daal di koy muur juróom-ñaari perkaal daal di koy gasal pax sëriñ bi mënul sax suul boppam maanaam dañ ko téye suul ko sëriñ ba mu faatoo nooyuwul yënguwul bu doon moom kese kenn du ko suul bu doon ci moom la des mënul yëkkati boppam suul boppam déedéet da am ko gas kàmb kiitee loxo kiitee tànk ñu yenu ko dugal ko ci pax suul tey kooku ngeen bëgg a jël tey moo gën waay ak yàlla ndax jàpp ngeen ni sëriñ boobu la mu am boo waay ak moom sax yow da ngay développé yow boo waay ak moom yow da ngay ubbeeku ba sa ubbeeku mooy gën sax ki nga xam ne moom moo waay ak yàlla borom bi subhanahu wa taala mbokk yi xoolal ñi fu ñu àgg ci fu ñu àgg ci xeetu bokkaale xoolal fu ñu àgg léegi dañuy bokkaale léegi daf ko mbégte daf ko ay reetaan daf ko victoire diwkat bul waayoo ak yàlla kaay waayoo ak sëriñ bi ndax boo waayoo ak sëriñ bi moo gën nga waayoo ak yàlla ndax boo waayoo ak bi ci ngay gën a ubbeeku que boo waayoo yàlla waaye nag genre yi lii rek lañ mën a wax lu tax ndax amuñu xam-xam boo xam ne mun nañ ko jox doomu aadama yi parce que xam nañ sénégalais yi xam nañ ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci tariixa ngëm bu ñuy gëm xam nañ la ñu bëgg a dégg ba ñu ñëwee la ñuy bëgg a dégg loolu lañ leen di wax bu ñu demee ci ñi nga xam ne dañoo gëm ni duñu julli duñu woor daganal leen indi ay wax yoo xam ni day gën a dëgëral lañ nekkee bu ñu demee ci ñi nga xam ni dañoo gëm ni lépp loo gis yàlla la ñaw ñu wax la ñu gëm dëgëral ko fépp fu ñu dem dañuy xool mbooloo mi ña fa nekk ñan la ñu wax la loolu gëm ñu wax la ñooñu gëm ndax ay waxkat lañ làmmiñ lañu yor rek di ratatatatata di wax duñ ne yàlla nee na duñ ne yonente bi nee na lu ñuy wax yëpp diw nee na diw ba mu fekkee diw benn waay ñëwoon na ci diw benn waay romb na diw yooyu rek mooy seen nettali jamais ñu indil la aaya teg jamais ñu ubbi ab téere jàngale ko ba mu jeex ndax xamuñu ko aslan bañ nañ ko ba nee nañ ñoom toog muy dox mooy seen liggéey maanaam toog muy dox wala wax muy dox nañuy wax rek di ubbeeku di tararari di du du am amu fu mu yem bés bu set damay tedd fii ne soo gisee coow lu bari lépp mooy teraangay suñ Tuubaa yii gaa yi toog muy dox ci Sëñ Tuubaa rek nga koy gisee toog fi nga toog muy dox waaw léegi nag kenn day laaj ma looy liggéeyee ma ne ko toog muy dox mu luy loolu léegi nag loolu nag jaral na leen lu nekk bu yeboo nañ jël yàlla jël seen tànk dëgg ko yëkkati seen sëriñ seen yoon newu ci bu yeboo ñu ne sëriñ bi mooy yàlla seen yoon newu ci en tout cas ñoom nañu wax mu ra def salaa salaam mu ne li ma gën ragal ci yéen mooy lu nekk seen diggante ñaari tuñ ak seen diggante ñaari tànk bu ko saxaabi bi ñëwee ci moom yonent bi salaa di ko laaj nasiha daf ko ne téyel ma sa làmmiñ bii di ko laaj pour mu conseil ko da ko ne téyel ma sa làmmiñ bii ndax làmmiñ bépp musiba buy génn ci làmmiñ lay génn ñii nag mooy ñooñu xoolal xeetu bokkaale bi amul kenn kuy toog ba xalaat waa kii moom la muy wax waa kii yàlla la jël de teg ko ci kaw sëñ bi déedéet comme que sëñ bi lañ ne rek moom moo waayo moom moo gën waayu yàlla rek ñoom seen yoon new ci jéemuñu sax xool sa sëriñ kan moo ko indi ci kaw suuf sa sëriñ kan moo ko nekkal sa sëriñ kan moo ko dundal sa sëriñ ndax jaarul ci xale sa sëriñ dafa jékki-jékki rek ne cëpp ñëw sa sëriñ ab xale la woon yàlla di ko teete muy màgg di dem am fukki at am fukki juróomi at nek nekk waxambaane di mag di mag di mag ba am jabot yow koku lépp lu mu meunta ne ak lépp lo xam manam existence bu du won yàlla du am batay nga koy jënd ko tek ci kaw yàlla comme sen wote yépp loolu la ñëw leen ci sëñ bi bàyyi leen fële yàlla da wax ji moom leer la loolu lay firi subhanallah yàlla borom subhanahu wa taala nee wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu kep ko xam ni wakkilu na ci yàlla yàlla doy na ko mu wa ala allah fa tawakkalu in kuntum muminin na ngeen wakkilu ci borom bi bu fekke aji ngëm ngeen kii nee na déedéet bàyyi loolu demal ci sëñ bi mbokk yi sëñ bi ban privilège la am boo xam ne yeneen borom xam-xam yi amuñu ko man loolu laa bëgg xam ban privilège la am yoo xam ne borom yeneen borom xam-xam yi amuñu ko saxaabatul kiram ñu doon ànd ak yonente bi xam nga Sénégal lañ lay wax la lu ñu leen mën a wax rek mooy sëñ bi jàmbaar la tubaab bi tubaab bi jàpp nañ ko yóbbu nañ ko si géej bi ok amul fenn fu leen nettali ne ay jaasi jóg na gorante na gor na ñii gor na ñee saxaabatul kiram xare badar uxut tabuuk xunayn ahzaab mbooreemi xare yooyu saxaaba yi ay jaasi lañ doon gorante dañ doon jàkkaarloog yéefar yi di gorante ak ñoom ay jaasi bu fekkente ni li yépp ñuy wax maanaam melokaan bi ñu jël jox ko sëriñ bi ba teg ko ci kaw yàlla lenn mooy seen preuve mooy seen seen wax ci loolu loolu fu ñu ko teg lenn la mooy jàmbaarloo na ak tubaab bi ndax saxaabatul kiraam ñoom dañoo jàmbaarlooru ak yéefar yi ci weeru koor saxaaba yi ci kaw ndox de nekk ci boto saxaaba yi ci ay doj lañ nekkoon ci ay xeer ci weeru koor fu jant bi di tàngee jër ci ay doj yu ay xeer yu tàng jër ñu jàkkaarloo noonu di doonante jaas nga gis ay baat yu ñuy gor nga gis ay loxo yu ñuy nga gis ay tànk yu ñuy gor deret di walangaan fu ne ñun ñooy saxaabatul kiram saxaaba yi dañ leen doon jàpp ñenn ñi ndax gëm bu ñu gëmoon lislaam di daggate seen yàpp yaram benn par benn naan leen ndax bëgg nga mi ngi lay def nii ñu koy def Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu naan man Muhammad bëgguma sax mu toog këram ab dëj daal di koy jam xabaabun arat tëgg la woon ba mu duggee ci lislaam noonu dañ koo fekk fa mu nekk bool bi nga xam ne moom la doon tëggee mu tàng jër nekk weñ lañ jël daal di koy teg ci lex bi Bilaal ibnu Rabaax ci naaj bu tàng jër lañ ko diri jël xeer wu tàng jër ñëpp xam nañu xeeru màkk lu muy mel jamonoy tàngaay teg ko ci kaw dënn bi mu koy lakk mu naan ahadun ahad ahadun ahad kenn la kenn la ndax seen sëriñ def na lu gën a metti lu saxaabatul kiraam yooyu def laa wakkal la wallahi xaajul saxaaba yi la ñu dund xaaj ñu koo dund abdullah ibn mas'ud ba yonte bi sallallahu alayhi wa sallam fësalee daawaam mu taxaw kaaba di woote ay noppam lañ dagg comme ñëwee ci yenn riwaaya taarix yi ay noppam lañ dagg yéen seen waaye ci kaw bato lañ ko teg bato bi dox ci kaw ndox bu dee ci vraie histoire bi nag laay wax man wax man nag yoo xam dañ ko cee dool li indi ay ay yeneen affaire dugal li génnee li yow seen sëriñ boobu ban privilège la am boo xam ni maanaam saxaaba yi amuñu ko nitu yàlla yi amuñu ko seen sëriñ ban téere la bind boo xam ni ñoom imaam Malik binduñu ko wala borom xam-xam yëkk jiitu binduñu ko imaam Ahmad musnad la bind musnad boo xam ne day jël waxu saxaaba bu ne صحابي بني متكو كوتي نياتا صحابه ني امون اي جوني جوني جوني ني بيند كو اي توم يدول جيخ تاي كي ني جيل تكو سي كاو يار اي ابيات لا بيند اي ابيات لا بيند تاي نياتا خالا نيو بيند ابيات نيول في اي خالا نيو لا تيل بيند سي بن جور ني بيند ابيات يدول جيخ امام مالك مو طالب بيند مو طا بو خامل دا ني ديلو سي موم سي والو فيق ابن تيميه نياتا تيري لا بيند lepp la bind bind na ci lu nekk keneen ak keneen ak keneen lan la seen sëriñ bind loo xamante borom xam-xam ya ko bindu ñu ko ba ngeen ne bi tey waaye moom moo gën a yàlla sëriñ bi moo gën yàlla yenn dof yu bon yi yenn yéefar yu ñun kukku taxaw naan sëriñ bee sàkk yàlla mbokk yi nañu yeewu ci ñii nañu yeewu ci waxkat yi wallahi alazim ku topp ñii ñu sànk la ci yoon bu jub bi ñii bokkaale la ñuy def ñii la ñuy def mooy la yàlla wax ni ku ci faatu du la ko jéggal inna allaha la yaxfiru an yushraka bih wa yaxfiru ma duna zalik liman yasha kuy bokkaale ki yàlla ba faatu ci loolu yàlla du la jéggal mën na jéggal benn bakkaar bokkut ak bokkaale bokkaale mooy comme lii waa ji def waayoog sëriñ bee gën a waayoog yàlla yàlla ne boo ci faatoo gëm-gëm boobu du la jéggal moo tax borom xam-xam ne hadihi l aaya azamu azamu aaya fi shirk wa axwafu aaya fi shirk wa arja aaya fi tawxid ñu ne aaya bii nii borom bi wax ni yàlla du jéggal ku koy bokkaale bu faatoo ci loolu boroom xam-xam yi ñu ne aaya bii de mooy aaya bu gën a màgg ci shirk mooy aaya bu gën a màgg ci shirk ñu ne wa axwafu aaya fi shirk mooy aaya bu gën a ragallu ci bokkaale ndax yàlla nee na du ko jéggale du ko jéggale mooy Hamza Jaxate mii lu muy wax nii mooy naan sëriñ bi mooy yàlla waayoog sëriñ bi moo gën a waayoog yàlla boo waree wax bu soobee yàlla ne bu soobee sëriñ bi ay sëriñ bi moo ñu moom ay sëñ bi moo ñu sàkk ay sëñ bi kenn la sëñ bi moo ñuy ramm moo ñu dugal ajana yii xeetu bokkaale yii yàlla dee na ku ci faatu du mën a jéggal ان الله لا يغفر ان يشرك به موتاخ بروم خام خام xam ñu ne aaya bi moo gën a ragallu ci shirk dafa ragallu parce que ku dee ci bokkaale yàlla du la jéggal ñu ne ايه arja aaya ايه tawxid aaya bi mooy aaya bu ñu gën a yaakaar ci waa tawxid mooy ñi nga xam ne duñu bokkaale ndax ñooñu yàlla dina leen jéggal loolu ngay بي ci aaya bi mafhumul muxaalafa bi ndax yàlla bu ne du jéggal ñi nga xam ne dañuy bokkaale mooy ñu dul bokkaale yàlla dina leen jéggal mbokk yi keroog nga xamanteni ñom lañu def yàlla yàlla neena na yowal qiyam izara isaara أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون كلام الله آخر قال بني تخوي أك نين دان بوكالك يالله موخم أي سري لا موخم أي خرم لا موخم لمونت دون نين آي يالله نيكات نون نكون سوي جاي ينغا خمانتني نيوم لن دان وو نيوم لن دان بولل نيوم لن دان تولل ñoo ngi daal di tontu sëriñ yeeg yu mel noonu tontu ne innakum la kaasibuun da ngeen di fen musuñu leen wax ngeen jaamuñu musuñu leen wax ngeen jaamuñu wallahi àllaaxira la nit ñi di toog mu neex nga ndekkee sa mbur ak nambe añ sa ceebu jën toog jàkkaarloog da wax di wax la la neex dafa yomb trop di tatatati rek di wax waaye keroog yowmal qiyaam ngay taxaw keroog yowmal qiyaam sa sëriñ am na lu ko doy li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi keroog àllaaxira nit ku nekk am na loo xam ne moo ko doy doo gis sax sa sëriñ doo xam sax fa mu taxaw doo xam sax fa nekk nekk nafsi nafsi lay wax ku nekk sama bopp sama bopp lay wax toog rek di ubbeeku rëy làmmiñ tararararatatatatat sëñ bee gën nangam sëñ bee ñu sàkk waayoog sëñ bi moo gën waayoog yàlla ay kalaam faadu yoo xamante ni teguwul fenn parce que yaa ngi toog venteloo mu la ëpp nit ñaa ngi tiim xam nga ni boo paree sa poche day fees ngay ratata ci di wax jàpp ni lay dund bis dina ñëw dinañ la di nga faatu ñu muur la juróom-ñaari perkaal nga daal di dekki def mu neen wallaay su boobaa ngay xam dëgg su boobaa ngay xam ni lu gars yi di wax su boobaa ngeen di xam ni lépp dëgg la mais nag adduna dafa neex nag adduna boo fi nekkee ba desaar ngay fàttali da ngay dee wallaahu mustaan comme mbokk yi nañu moytu li wax na ci waxam mu ne ña jàngi woon ba ñu ñëwee sëñ boobu muy wax ne jàngi woon bu ñëwee sëñ bi gàgganti leen ban téere la bind ci xam-xam lii yëpp dañ koy wax pour neenal ñàng parce que ñoom jàng arrangé wu leen parce que dem jàng yi ba xam diine ñooñu bu ñu ñëwee dañuy yàq seen i plan maanaam dañuy yàq seen i dil ndax ka jàngi moo mun a ñëw xam seen caaxaan yi ñu nekkee moo tax dañuy neenal ñàng mun naa la wax sëriñ bi ka jàngi woon ba ñëw sëriñ bi da koy gàgganti <laughs> maanaam neenal ñàng mooy la bëgg a gëmloo mooy jàng daal am na lu ko gën maanaam mun nga bañ a jàng nga gën a xam ko jàng loolu di ay caaxaan jàngoon ba ne ar itam ndax ña jàngi woon bañ dëkkee moo leen di gàgganti yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo gën ñëpp yàlla na ko iqra jàngal sëriñ tuubaa dafa jàngi dafa dem Mauritanie jàngi dem na Mauritanie jàng na am na ñu ne jàng na ci papaam am na ñu ne dafa jàng toogul rek ñu sol ko xam-xam dafa jàng dafa dem jàngi doog am xam-xam lu mu bind ci xam lu mu xam ci luga ci làkku arab ak yooyu da koo dem jàng da koo rek ñu sol ko ko histoire na loolu ñëpp xam nañ ko nga toog naan noo sëriñ diw xaw ma Cheikh Ibra jàngiwul waaye ku ñëw mu gàggandiku Cheikh Ibra ban téere xam-xam comme ñii ñu nii ñi ay nit la ñoo xam ne daal ay nit yu doyadi lañ yoo xam ne toog rek di wax nit ñi nag comme que nanguwuñu yeewu ak ñun dañuy wax rek dañuy wax rek ku amul argument nag li nga mën rek mooy saaga bu ñu lay argument yi leer ci alquran ak sunna saaga day ngay def xaste menacé kese ngay mën ngir yàlla ubbi leen seen maa ngi nii ubbi leen seen bopp xalaat leen tuuti jar mbir mi boo jàngul sax boo xalaatee tuuti rek nga dindee ko mais wallahu mustaan yàlla yàlla sàmm hada wallahu alam wa salli allahuma wa salli sallim wa barik ala nabina